xam ngeen ni moo du Fall di Boy Djiné dafa rëccoon ñu jàpp ne nag am na ñoo xam ne jàppale woon nañ ko tànk bokk ci ñoom ab du Faye moom dañoo njort ne dafa faatu waaye faat gi li ko waral moo di dafa xaru ci commissariat ba am na ñu nag xibaar yu bees yu ñuy xamal ni faatu googee ab njàmpe daal daal di jëfandikoo ngir mën a faatu dañuy déglu sedd ci kenn koo xam ni euh, as soxna la mu ngi tuddoo ci euh, mu ngi wuyoo ci turu maam Kumba euh, si moom nag mbokk la ci kenn ci co-détenu déglu ko ak El Hadj Ndiogou Diène yàlla lañ nekkee li ñu bëgg rek mooy que nañu dimbale bàyyi suñu rakk yi parce que affaire bi ci loo xamante ni di ñu ko ñu nar a sacrifier ay doomu jàmbur ci zéro nañu dimbale nañu dimbale defuñu dara dañ doon dimbale Baye Modou. dañ doon dimbale koo xam dafa évadé te yoon nag dafa tere loolu. dëgg la mais erreur mënul ñàkk même Baye Modou rayul nit. rayul nit deful dara du criminel fii am na ay cas yu ko gën a garaaw yu fi nekk Sénégal nit ñi ñi ngi rey nit di circuler ci dëkk bi ñi ngi sàcc ay milliards di circuler ci dëkk bi mais que seen xol moom moo leen toog ñu doon aidé ba lii fekk leen ci dañ leen bàyyi ki dee nii waxoon na leen ko parce que dafa am benn xale bu jigéen buñ ci woo ko copinam la yoonam nekkut ñu woo ko jàpp ko mu ne leen carrément bàyyi leen xale bu mu bi su ngeen ko bàyyiwul di ma ma toog ak moom ci kase bi bët démb ba léegi trois jours mu ne leen bàyyi leen xale bi bu ngeen ko parce que yoonam nekku si ko binam la ñu seetaan ko nii nii nii ba kooku tey xëy dugg ci toile di jël njàmpe def ko ci baatam dee. kon noonu la xaroo dafa jël njàmpe la jël daal di koy yor ci baatam. faat boppam moom Abdou Faye. waaw waaw loolu la def.